di nuyu di leen kontaan ci mobilisation bu rëy ngeen ñu defoo di leen jéggalu ci guddee waaye xam ngeen rek campagne électorale bi léegi ngeen am ay dog-dog ci yoon bi ñu leen ci masawu bu baax a baax a ñu ngi jiital ci nuyoo bi chef de village ñu ngi jiital ci nuyoo bi imam ak kilifa diine ak ñu ngi nuyu monsieur di nuyu monsieur le préfet ak képp ku koy ci dëkk dëkk bi parce que Thiès département mu ngi ànd ak tey monsieur le ministre Birame Souleye Diop qui a tenu quand aujourd'hui malgré agenda bu chargé boo xam ne yor na ko délégation ñoo ànd ak ñun fii ndaxte ministre dafa bëgg di ànd ak ñun moom mi nga xam ne mooy toppatoo énergie pétrole ak gaz ak mil gox yi ñuy jaar yëpp mu ànd ak ñun gis difficulté yi fi am te Sénégal daanaka ñaari difficulté moo tere ñëpp dem mooy ndox courant ak yoon ginnaaw moom mooy toppatoo wàllu courant ku dugg fii xam ne éclairage public manqué na lool waaye waa Kër Moussa dañoo xaw a ñàkk sens ndax boo ko xoolee këy moo am aéroport am port am am autoroute waaye moo gën a wóor am ngeen teer mais ni leen aéroport bi jariñul dara noonu la leen teer bi jariñul dara ndax li ko waral mooy ku def aménagement du territoire bala ngaa def teer muy dem wala ngay def ay rapport foog mu amal njëriñ gox goxaat yi ko wër waaye yéen munoo leen nekk foo xam ni da ngeen seen avion yi ci kaw di seen saxaabu teer bi ak poussière bu nii te du leen njëriñ daal donc aéroport bi ñëw na enclavé Kër Moussa autoroute bi jaar fi gën leen a enclavé maanaam yéen yoon yi ci yéen la jaar. nit ñi bu ñuy ci yéen dañuy jaar te a dem mënatu leen a dégg loolu moo tax nag président Diomaye ci vision Sénégal deux mille cinquante ak président Ousmane li mu présenté Thiès jëkke Thiès daal di tànn seen benn doom muy Cheikh Tidiane Ciss ate problème Kër Moussa il faut ñu yóbbu kenn ci liste yi ndax mu mën leen a teewal foofu problème yi ngeen dund nag moo tax a jóg les pôles territoriaux pour corriger erreur yooyu nga xam ni Macky Sall bu ñu koy def li ko neexoon rek mooy nañ ko teel a parax mu pare suñu waxee ñu liggéey naa donc dañuy jéem a corriger waat aménagement du territoire enclavement bi mu mujj jural waa Kër Moussa ñu leen wax ni sëñ Youssou dégg nañ li nga wax Cheikh Sarr dégg nañ li wax bu nee nga Kër Moussa mor ko na mor ko ndax gagné bi du question am cent pour cent il faut participation bi yokk il faut nit ñi xam lu tax ñu war a jóg vote ji ndax fii ñun foo laal ci ñun ku nekk na laal ci mu dendaw ku nekk ci ñun yoreel nga ay nit sept cent mille mooy bor bi ñu ci may Macky Sall bàyyi maa ngi gis benn femme ndeysaan mu ngi fab doomam man ñaar ñii dañuy dox yoreel ay nit ci àddina un million quatre cent mais yëguñu ko moom doom dafa war a tiit tiit lu nit ñi c'est pas parce que yoreel nga nit ci bor xamoo ko doo ko fay ñu koy fay de bi ñu jógee ñetti fay lan la ñu wax amuñu poste de santé foo dem ñu ne la amuñu tali mooy yaa ngi fay bor bi ndax bor ñaar nga koy fayee sa poste lay génn wala lu la état waroon defal ci hôpital ci service public ci tali. ci école ba du la ko defal nga koy defal sa bopp loolu mooy fay bor bor par force bu kay taa lebee duñ ko fay ñoom nag dañ koo leb trop ci ñoom seen poste la jëm moo tax ngeen war ñu permettre ñu jëli xaalis bi ñu sàccoon fexe leen ñu am cent cinquante députés yi wër mën a delloo ci xaalis bi ci askan wi mën a désenclaver Kër Moussa. asalaamaaleykum waa Kër Sega waa Kër Sega ñu leen di nuyu di leen ziar. jàpp naa ni jamono yi politiciens yi ñëw fii di nax nit weesu nañ ko am na nag loo xam ne dundoon nañ ko fukki at ak ñaar li ñuy wax dafa yomb képp koo xam ne jàpp nga ni fukki at ak ñaar yi fi Macky Sall def gis na ci ay njariñ boo demee nga voté mbir mi moom dafa yomb ndax ñun ki ñuy xeexal moo fi defoon fukki at ak ñaar. nee na lépp loo xam ne mënu ko woon ci fukki at ak ñaar yi mu ngi waatal ne bu ngeen ko joxaatee juróomi ak dina ko def jàpp naa ni loolu mënul dugg ci xelu sénégalais li nga xam ni nag moo solo te dañ koo yaakaar fu mel ni Kër sega mooy bu leen xeeb dara il faut que ñëpp génn dem voter bu ngeen xëyee suba jël leen spécimen yi ngeen dugg ci biir kër yi. ngeen wax nit ñi lan mooy importance élection yi élection yi élection yi ama am solo la parce que fii ak décembre bu lay fàtte ni ba léegi Sénégal amagul budget ba léegi kenn mënul wax ndax ñeme nañoo tabax école ndax na nañoo tabax hôpital ndax mën nañoo defar ay tali ndax amaguñu budget lu tax amaguñ budget parce que amaguñ ay député nit ñuy tuumaal yëpp naan juróom benn weer lañ fi nekk mais yow juróom benn weer ki fi ñëw amul xaalis ni bor yi ñu fi bàyyi rek loolu lay loolu lay fay bor yi fi bàyyi rek lay fay moo tax nag budget boobu nga xam ne war nañ koo voté balaa ak bi di jeex sinon boo moytuwul buñ ko voté dina indi tuuti jafe-jafe nag ci doxu doxalinu réew mi moo tax ñu bëgg benn score boo xam ne buñ ko déggee suñu mbokk yi nekk bitim réew suñu partenaire tubaab yëpp dinañu Sénégal ñii kat jëpp ci yoonu changé dina changé moo tax bu leen ko xeeb bu kenn xeeb benn voix il faut Sénégal mën a am budget pour ñu mën a xam ñaata hôpital la ñuy tabax pour ñu mën a xam ñaata école la ñuy tabax pour mën a xam fan la ñuy yóbbu xaalis loolu avant at bii di jeex la avant décembre mais pour mu yomb nag il faut dimanche bii di ñëw bi ci topp ñu jox président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko les moyen ñu mën a liggéey bi doon su lay jóoba ñu ñuy tey fépp fu jaar nga ni ko dem fee soxla courant mënu ko ndax fekk fi xaalis boo xam ne mën naa yóbbu courant bi fu ne fekk ko fi donc ñun député yii ñun ñoo leen mën a voteel xaalis bi nga xam ni moom lañ mënee fexe dëkk yi nga xam ne amul courant ñu yóbbu ko fa moo tax élection am solo député président ko Sonko ko la député Macky Sall ñoom dañoo wax Macky Sall moo leen yóbbu assemblée lim leen sant jaww ñu koy liir bu ñëwee rek dañuy voté dem ñun nag bëgg ñoo liggéeyee noonu dañoo bëgg ñëw ci gox goxaat yi xool li nga xam ni moo fi ay jafe-jafe ñu fexe xool nan lañ koy yóbboo nan lañ koy indilee ay saafara moo tax mu nekk loo xam ne lu am am solo la ñu ñaan yàlla ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax ngeen jël seen matuwaay yëpp ba nga xamante ni spécimen bii ñu leen wan bu kenn jaar ci ginnaaw daan leen am na sax candidat yu ñu dégg dañuy jël spécimen bi taf ci seen bos naan ñoom ñooy Ousmane Sonko ñoom foofu lañ toll de dégg naa sax Amadou Ba nee na mu ngi ragal waa Pastef fraude ñun ñun lan la ñu ay élection bu ñu gisee mbooloo mi nga xam ne topp nañu donc kii na ngeen ko xàmmee bu baax a baax a baax képp ku tiim affaire na nga xool photo Ousmane Sonko ban moo am photo Ousmane Sonko. moom mën na nañoo niroo ay couleur mais kanam gi moom mënuñu koo bokkale ay couleur mën nañ koo niroole waaye kanamu Macky Sall kanamu Amadou Ba bëre ak Ousmane Sonko boo leen même ci këyit ak soto ñoom bu ñu xawee laal seen bos couleur ko sax du ñu niroo Ousmane Sonko donc na ngeen ko xàmmee bu baax. Kër Moussa ñu leen ñu wax rek. problème bi gën a am solo ngeen abordé ko mooy problème mu suuf si mooy problème mu bi dafa nekk un problème national boo xam ni xam nañ les ses ndax dafa yàgg xam nañ ni aussi lu tax ngeen war jox ay député Pastef assemblée nationale foog ñu waxtaanee ko pour nit ñi comprendre lan mooy enjeu dañoo nekk réew moo xam ni ndaw yi dañoo bari loolu la statistique yëpp génn mooy on est un pays très très très très très jeune proportion yi ñu lay wax ci pourcentage ci ndaw dafa bari loolu lan lay tekki lan la war a impliquer mooy loo xamante ni kenn mënu koo taw yi muy suuf suuf rek la ñu mënul taw yi usine buy defar suuf amul ndax suuf kenn mënu ko yokk te kenn mënul dëkk ci géej kenn mënta dëkk ci kaw asamaan si ba pare nga am ay ndaw lu bari lan la war a teg mooy suuf rek ci la justice sociale mën a amee loolu mooy il faut ñu harmoniser tout le foncier am benn code unique amul code du domaine de l'État code propriété fële domaine national nekk fële mu mel ni daa yoo xam ni moo ñam titre foncier mooy ñi nga xam ni ñoom la yàlla tëral ak baadoolo yi mooy le reste de la population nga xam ni moomuñ seen suuf loolu moo indi jafe-jafe yëpp ngeen gis li nga xam ni nag jub bi commencé na mooy naa leen juróom-benn weer ñi nii Macky Sall dafa nu woon bu Sénégal di tàkk suuf a koy taal coowal suuf mooy taal réew mi ndax li may jot ci dossier par jour ëpp na bi ma si Diomaye Faye président Ousmane Sonko yéegee ba tey je pense que kenn déggatul problème suuf ci Sénégal man koy wax bërki démb nee naa leen suuf si taxawul ñi ko doon jaay jógee ñu am na kon mu soppeeku bu dee dégg ñu coow mooy daal ñu nekk ci kaw ñoo xam ne ñu ngi xool toute la chaîne muy collectivité yi di autorité décentralisée di ministre yi ñëpp kan moo fi dégg fu ñu dugal jiw am na quinze hectares population yee ñoo nga yëngatu seen suuf yooyu ñëpp daa jekk-jekk rek fayal bopp mais fay bi daa am ko indi mooy dañoo am kilifa yoo xam ni seen programme suuf da cee nekk ndax souveraineté alimentaire ak agricole lañ wax réforme nag yi nga xam ni li li nga xam ni mooy njëkk leeral mooy gis nga bis bu ñu commencé ba ñun ñu yegg assemblée nationale ba def parce que assemblée gouvernement bi day projet de loi ñu ñuy def suñu proposition ñu ne nañu fexe ba titre nekk ci maire yëpp nañ ko informatiser titre yëpp ñu xam kan ak kan la gis nga loolu bu génnee ba ñu gis ñu leen titre yi rek dinañ mën a comprendre lan mooy lëmbaal problème bi mooy Sénégal amoo ñëpp a lëndëm ñi yow dañoo yore mais fi ñu toog kenn mënul xam ni yor nañ da nga gis nit ku toog ñu ne la am na 500 terrain bu benn nit amee 500 terrain yow nga am ay ndaw moom mu ne da koy denc pour alal loolu rek ñu bëri sax du caagi ni dañ koy denc ba muy gën a cher maanaam def ko. objet de spéculation mais yow boo yoree cinq cent terrain am cinq cent jeunes ci koñ bi yow benn nit loolu bu ñu màggee am trente ans bëgg jabar bëgg doom nu ñuy def deux mille onze li ñuy wax révolution printemps arabe da cay bokkoon ñàkk mën a am kër ak ñàkk takk jabar loolu dañ koy fàtte mu ne defoon nañ ko pour ñu jële fa seen président mais jeunesse bu amatul espoir rek mu fi dugg ci révolution yu violent donc ñaari suuf si yëpp buñ leen xamee am na loo xam ne amul si benn dëkku àdduna boo demee France nee naa la ku nekk benn kër nga mën a am ak ñoo mën a toll benn kër am ak benn boo xam ni fa ñuy vacance la mais boo amee ñett dugg nga problème da gis ku war a doonu bàyyam mu xool li ko bàyyi bi jox ci suuf mu dem ne état bi jëlal parce que lii su ma ko yoree tax yi mën a fay moo may indil problème moo tax dëkk yooyu waxoo suuf du fa problème doo gis jeune boo xam ni day nekk Europe naan man de soxla naa kër parce que du sa problème parce que xam nga ni di ko mën a am donc yooyu yëpp ay réforme la yoo xam ne dañ koy indi leneen li am solo mooy dañoo dugal suñu bopp loo xam ne ci suuf toujours moo biaisé la chaîne économique mooy la ku jóge Europe boo ñëwee bëgg a investir lay wax dama jënd suuf doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan te bu yàggee nga jaay ko ñu gis spéculation foncière fi mu yóbbu dëkk bi tey nit cher na pas parce que ciment daa cher terrain ba moo la yóbbee loraange ndax di nga jënd terrain loo xam ni sondation nga ba yëkkati dara rek moo lay dese mais njëgu terrain bi kese loolu la te li ko indi mooy spéculation donc il faut mettre fin à la spéculation bu ñu ko defee dinañ régler lu bëri gis nga xaalis bi ñuy dugal ci suuf il faut décourager la propre la possession bu amul njariñ mooy yore terrain yu bu ñu xamee kana kana ko moom bu ñu la yónnee gis nga kër yu melaw almadi da ngay romb état bu ñàkk fayda mooy nga romb terrain boo xam ni bu ñu koy jaay un milliard lay jar waa ji bàyyi ko fa dix ans du fay benn taxe mais bu doon chaque at mu fay deux millions léegi mu jaay wala mu dëkk fa mais doo ko denc mu lay jural suuf mënta jur xaalis luy tëdd di nelaw warul jël xaalis loolu amul bu sens économique donc moo tax bu ñu découragé sénégalais di dugal seen xaalis ci suuf bu denc ko fa président boo xoolee référentiel bi problème bi ñu njëkk a identifié ci économie Sénégal mooy l' épargne sénégalaise est trop trop faible sénégalais épargne kenn du épargne si bi ñu épargne mais ci suuf lañ koy dugal épargne boobu amul njëriñ autoroute bii bi ñu koy tabax Dakar Thiès bi bu ñu ko ubbi woon def ko société capitaux par action ñu ne boo amee 3 millions dama jënd action foofu am njëriñ. ndax loolu da lay jural heure boo soxlaay si trois millions am ko te chaque at ñu jox la dividende biñ koy def Sonatel maa ngi ma fekk université mais boobu ñëw nii amuñu mais action Sonatel heure bi sénégalais bu ne waroon na ci am jëmoon cinq millions action Sonatel moo ëppoon njëriñ nga jënd ko terrain il faut donc suñu épargne ni ñu faible ñu dindi ko ci suuf si dugal ko dans l'économie réelle loolu moo tax li mu ni su budget dañ ko war a commencer constituer à partir de recettes yu jóge ci ñun yaa ngi dégg banque de la diaspora bi ñu waaj a lancé pour que diaspora bi bu ñu wootee seen xaalis ñoom it duñ ko dugal ci suuf quand on découragera la propriété foncière ba ñun mënatul am benn façon suuf mënul nekk ñu fixé ñi nga xam ne pour bay kese la comme la nekk QVS suuf yooyu kan moo dof ba fay tabax suuf yooyu kan moo koy xool du fa tabax loo xam ni lu ñuy jëndee pétrole lañ ko waroon exporté bu ñu amoon lu ñu waroon importé mooy suuf su mel noonu suuf yooyu amul ci àddina lu bari ñoom ñu bëgg a ñëw ni lañ koy tabax. bu ñu protéger zone yi ñuy bayee zone yi ñuy sàmmee protéger zone yi nga xamante ni dañ faa mun a def lu dul bay kese kese kese boo ko yoree bayoo ci dañ koy nangu Sénégalais yëpp ñu redistribuer ñi am quatre cent cinq cent hectares ak huit cent hectares je pense que dina indi équité sociale dëkk bi dinañ ko kàllalu xaalis bi nga xamante ni dañ ci daan sonn di ko jënde terrain buñ nee la dama jënde ko ciment lépp nekk am kër réforme yooyu la ñuy demee assemblée loolu c'est très important moo tax ma ni jarul coow déggatu leen coow ci foncier bi gaa yi koy réglé si suuf ñun bu ñu yegsee incha allah dinañ ci def ay proposition ñëpp service yëpp bokk ci liggéey nga xam ni chaîne bi Macky Sall désorganisé ba nga xam ni que soit gouverneur que soit waa ministre de l'urbanisme waa impôt domaine waa cadastre doo xam kan ak kan ak mooy gérer affaire suuf kan moo mën a protéger suuf dañu def toj-toj nga ni kii fu nekkoon kii bi muy dagg bu ñu fexee ba kenn mënatul def lotissement boo xam ni lotie wuñ ko indiwuñu fa ndox indiwuñu fa courant ñu ne la doon fu duñ la bàyyi nit di fi tabax bu yàggee rek dëkk di change ci tànk yooyu lañ taxaw ñu leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum